ndax kat euh, ndam du tuut te nit bu ñaanee suñ borom may ko day sant mu dolli kon Mbàkke bis bii li ko tàmbalee ci jigéeni Madakaw lépp bisub sant la rek ak sargal la ak dolli ñaan Madakaw nag day mouvement boo xam ne su ñu amee ay gan ñu dikk ñu toog ñu am kilifa gu mel ni sëriñ Fallou Mbacke cër bii ndawut ci ñun kon ni ko sëriñ Mbacke waxee te it Serigne mii toog def nañu ko ba pare. ndax kat gannaaw yàlla bu ñu faloo ak yonent bi ak Serigne Touba jëmmi sëriñ Fallou Mbacke mee tax kon defe naa ne dana jaadu tey sëñ Fallou xam lan mooy Madakaw ak kuy Madakaw ndax kat wax naa ko ko tey ne ko Madakaw de Serigne Cheikh Serigne euh, Abo Darma moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma moo jël tur wii di mouvement Madakaw tudd nañu ko di mouvement ànd jàppale askan wi. Madakaw tuddul woon Madakaw beneen tur la ko tudde woon li may wax nag. Serigne Awa Mbàkkam Serigne Kosam yi mat na ci seede Cheikh baax a Diop ak Aline Badara Kan moom bëyti kan man na ci seede ndax boobu ña nga fa toog sëriñ Abo ma waxal ci gémmiñu boppam ne ma bis dana mas a ñëw nga diw ko fu sa nopp àggut fu sa bët àggut te sa tànk teguwu fa te bu soobee suñ borom di nga ci am lu kawe sa njot te fu mouvement di dem ma da kaaw dana fa dem léegi laa koy wax sëñ Cheikh mii ma ne ko benn bis bu ma dakaaw ma sa organiser te demuñ ba Serigne Abo ñaanal ñu ci nañu dana sedd ñu doog koo def amut yàlla na ko suñu borom fayal te yokk ay leeram te taas ci barkeem ndax Badakaaw kat amut lu mu ko faye ndax gëm nañu bu ñu demee ba toll fii tey ba ak sant di am suñu borom def na ci Serigne Touba def na ci waaye Serigne Abo Mbacke def na ci du ma ci jóg du ko wax mukk ba korok may faatu ndax lebal na Madakaaw lu ko Madakaaw mënut a fay sëriñ bi. Madakaw ay ndaw rek ñoo ko composé ak ay responsable des femmes suñu yaay nekk ci suñu rakk nekk ci suñu soxna nekk ci ñu nekk ay femmes de développement ñu nekk ay femmes ñu am jom tey la la cinq suba la la six suba ku ñëw sama kër ñoom ñii ñëpp fa nga leen di fekk mat Sénégal bi leen téye ñoom responsable des femmes yi ñoom ñëpp fa nga leen di fekk ñoom seen la six bii bi mën na leen da ngeen di sonn bu leen ñëwee la cinq fonkul fomb leen ko lañ ne duñ ko fomm la six kay galas na jàmm rek di am suba ku dikk ca kër ga fekk leen fa chaque le 6 ñoom ñëpp sama kër la ñu dajee ñu def seen i tàngal seen ñaat dërëm seen i dërëm kenn bokk seeg sa morom foo dëkk ci responsable yi may bëgg a kenn te kenn ku ci sag njaboot xewle muy bànneex wala muy naqar ñëppay mobiliser wu dem ànd kook yow kon defe naa ne ay jigéen la ñu mànkoo ñoo ànd ñu nekk benn li ñu booleeg ñoom nag mooy ñu amoon yéene ci suñu waajuru jigéen suñ borom teel koo yóbbu na ñu bëgg koo mottali ci ñoom ñii am yéene ci jigéen ñi tuubaa am yéene ci dëkk bii di Touba ñu bëgg a bokk ci ndaw ñi koy développé ëllëg tax ñu ubbi leen suñu bopp ndayoo leen ñoom xeebuñu ci kenn ba ci Fatou Kiné Gaye mi nga xamante ne si ne mooy responsable des femmes gën ci nekk xale nga xam ne moom sama soxna ñoo bokk nday ak baay ñu jiital ko ci ndayoo gi ba ci soxna làmb mbooj mii ba ci ka ci gën a mag ñoom ñëpp ñu def leen ay ndey ubbi leen suñu bopp may leen suñu lépp nag ñu ndawi Madakaw loolu mooy Madakaw boo diggee da ngay jàpp ne benn famille la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kenn ku ci nekk sañ ngaa wax sa moroom lu nekk te du tere bu ñu jógee ñu àndal bu ñu toogee dëgg la ñu tàmbale ci dëgg lay jeexee sëñ bi ci loolu la ànd ak yow incha allahu rabbi ànd bi ñu ànd ak yow nag li ko lool dafa bari ndax lebal nga Madakaw loo xam ne Madakaw mënoon na caa sukkandiku rek na Serigne Fall la ñu jàppale ndax amul benn bis bu mouvement Madakaw mos a sa te Serigne Fall Mbacke mii toog dugale ci loxoom amut ba ci bi ñu mujj nag ci saal bii nag laa fàttaliku leen yéen sëñ Fallou waroon yàlla def moom empêchement sëñ Mbacke ko teewal ak Serigne Abdou ba ci bis bi mujj def ci saal bi nga xam ne lu mouvement Madakaw a def rek dugal la ci loxoom man nag ma di ko wax bis bu nekk. ndax damaa jàpp na ci social bi Madakaw engagé wu di ko def amuñu lu ko gën a kawe mooy di jël suñu deret di ko joxe te yàlla tax du ko jaayanteeg Serigne Touba ci bisub safar bi nga yëkkati sa alal di ca joxe man caa yem bu la neexoon da nga yónni sa délégation comme ni ko ñëpp di defee waaye yëmatoo ci da ngaa ñëw ko yëkkati sa deret bopp yi nga xam ne amuñu deret di ko gën a for muy deret Serigne Touba nga joxe ko te jëmbi Serigne tubaa rek nga tax loola rek Madakaw mënoon na coo sukkandiku waaye Mbàkke yëmuñ ca parce que nag li may wax bis bu nekk gaaw a génn ci mbir lu mu bon bon gaaw caa dugg ko raw bi candidat yëpp wootee dañu toog ñu def réunion Madakaw majorité bi ci ëpp doole ñëpp maase doole nañu jàppale ci sëriñ Fallou Mbacké defe naa la nag ànd bi ñàkk suñu jigit nag ñun waa Madakaw ndax nag bu ñu àndoon nag keneen kon na ko yeneen responsable defee te jàllu bu boobaa dana génn mel ñun ndax kat defet ba nu mu mën a toll ñoo koy bokk kon nag ànd gi ànd ak Serigne Fallou nañu. sëriñ bi jigéen ñi mouvement Madakaw ñu ngi leen di jël nasu nañ nag buum def nag cours ci seen bopp jox ñu seeni loxo ñun responsable des femmes ñun responsable Madakaw yi rawatina man coordonnateur Fallou Diop jëlaat naa ko teg ko ci sa loxo man Fallou Diop mii ànd ko waa mouvement Madakaw yëpp sëriñ ñi ko soxna Ami ci waxee léegi noonu lañ ko bëggee soxna Ami lu manqué ci ànd bi rek man yow sama yaay yoo laay wax man yow yaay sama yaay ñoo bokk bawal buñ ne bu sëñ Fall ne woon tey bu kenn fanaan ci a yooyu bokk oto jërëm ñu bi lool kon lu manqué ci ànd bi yow laa koy wax bis naka tey responsable ni soxna làmp mbóot def parce que koro bi ma ne koo ca permanence ba ne ko suñu duggee ci biir coalition bii man moom képp kuy bañ ma wax dëgg bul ma yóbbu ma koy waxe wala bul ma yëgguti suñu duggee ci biir coalition bii jëmmi si am Amadou Fadal mii tax moom mii moo tax ñu dugg ci biir coalition Yewwi Askan Wi te bis tey jii bu defoon déclaration ne génn na duñu fi bàyyi pour mu leer lépp ba soxna làmbalee day ñëw dama ne ko boo demee toppal ci gannaaw soxna amitin bu ne laa jéggil wutal ma ndox sax defal ko ko moo fay sama yaay moo fay sama responsable moo fay sama lépp man du ma jiital nit du ko fakastal te gis naa ne que Serigne Fallou teg na ko ci kanam ay jigéenam boo demee toppal ca gannaaw te ku nanguwut a toppee du jiitu noonu laa koy defee waat soxna amitin bi jigéen ñi mën a kaaw gi nii bëgg nañ ko leen jàppale ay asgor dëgg lañ mën naa laa waatal ci sëñ Touba ci sëñ Touba waxtu wii dañ ne leen yéen responsable des femmes ku ciy ñëw bul romb cinq personnes te Madakaw di jox kenn transport ñoo ngi nii barke Serigne Touba kenn ku ci Madakaw jox benn dërëm benn dërëm na la jëlal taxi amul ñoo fayal seen bopp ay taxi ñoo indi seen bopp te du ñibbi mukk te jeexul nag. nii nag la ñu ànd ak ñoom ba ñu tàmbalee ba bi te nii la ñu ànd ak ñoom ba ko ñuy fekk suñu sang bu baax ba sëriñ bi dénk nañ la bu baax jigéen ñi man day damaa amul seenu fay ndax fàllu jóob fàllu jóob bi yaatu na olof nee na feccum liir bu neexee nday jaa dee ca bagg jee nday madakaawa ngi nii si jigéen ñi lu ñu tiitaroo ci mbooloo ñu ko def lu ñu sagoo ñooñu ko def ay asgor piir lañ kuy jàpp asgor bu leen fi fekkee du leen bàyyi moo tax tey bi ñu ne dañuy sargal sëñ Fallou ñu ne kat bu ñëwee danaa ci jël kàddu wala maa def benn déclaration wala may wax dara ma wax sëñ Fallou ñan ñoo jigéen ñi Madakaw ak waa këram bu ko defee nag ma yëkkatiwaat leen ndax liggéey bi day doog a door te manquement yi bari na. korog bi ma nee nañ ma jox oto 30 oto lañ ñu jox lañ ñu waroon a jox ñu jox ñu fukki oto ak juróom soxna Ayda lay mi rek di wax moom mii juróomi oto lañ ko jox daaray fettoo moom mii. mu wëlbatiku woowaan ma ay midi na ma galas nit ñaa ngi nii amuñu fan jëm ma ne ko soxna it amatuma ndax man jël naa sept oto doole ci muy 22 oto foofu la sa poche yem damaa joxe ba sonn ma mujj obligé ko wutal oto yi ndaw ñuy roñ nit ñi di yóbbu ñuy wate ci nga xam ne moo mujj obligé jël ay moyens boppam mel na moom mi rek laa wax leer na jëmmi sëñ Tuubaa def ko soxna su koy faal mais daf maa mere nexi oto ndax dana ma juróom man a ko ñett laa am moom laa lay yónnee Madiyaana lii nga te ñoom ñëpp ci noonu am na ci ñoo xamante ne si ne maam yaa seen kan mais kin na gay nee na ko seen naa la ay saret la doon rojo ay nitam kër ñag maam yaa seen na oto la ma laaj ma ne ko amu oto amatuma oto bu ma jox kenn li ma yoroon joxe naa ko fanweeri oto lañ bëggoon fukk juróom lañu am dolli naa ci juróom-ñaar muy ñaar fukk ak ñaar nañ ci yem li ci des ku nekk def see pexe Mara Mbàkke mii ñetti oto lañ jël yu ndaw kuy daaru ku sant mbàkki nekk daaru ma naan bu dee gone nga sax dañ la koy warmaale dala baal ñu jël si la yóbbu la nga wax la yóbbu la nga ñibbi nga xam ne la ko nekkee woon daaru ma naan te lépp mbàkki jiital nañ la te rek waaye suñu saga nga ci woon ndax kat bu ñu toogoon ba ngoon résultat yi génn ñu ne yow askanu ñàkk na ah duñ ca génn kon nag doon nañ ci wut sa ndam waaye doon nañ ci wut suñu ndam waaye mbàkke xam nañ ci lu bare bare bare bare bare te santal suñu borom bu baax nag te sant samaam ja mën naa wat ci sëñ Tuubaa da ngay doole rek bàyyi ndax as gor nga te bu neex àndal waaw te dëkk bii ñu nekk man li ma gëm mooy waxuma la dëkk bi mais ba ci président de la république bee sëriñ bi moo fay fale moo fi follee ci histoire ku ko mas a bëgg fii nga ko sàkku see ba ci président bii ko yor di Macky Sall ndax ko rek bi mu dawee dikk fii fekk sa ñalaaji baaram mu jox koy daalam ñaanal ko boole ko seen gemes ko toog ñu ko demal ngul bil ko barab ba mu ñaan fa la mu bëgg ñu jàppale ko ci saay rek ci baatin ba mu toog fa boo demee bu waxalee te yàlla rek boole ko ku la fal mu ne la sëñ Touba te baat ñooy tugg ko te nag Mbàkke da nga ko yor te yàqaloo kenn yàqaloo fa sa bopp yàqaloo fa département bi nanga nga fa war a def lépp def nga ko fi kon nag ba ñu tiimee sa bilan bi dañu sëñ Fallou askor la parce que bit sa bii mu yor nga xamante ni sii ne moom lañ koy jox par année mu def ci réalisation yi bu ñu ko joxoon keneen këppoo na Cees gi te dem kon Mbàkke jërëjëf li nga war a def lépp def nga ko ñii ngi sant bu baaxit comité électoral bi ñu àndoon ñun ñëpp bàyyiwuñu kenn di sant ko mel na Serigne Cheikh Thioro man day korog bi ma ko njëkkee teg bët mooy sama bis ba bi mu ñëw di bisu Malakaaw mosuñoo gisee korog la ma mas a gisee waaye ba mu waxee téye naa ko ndax wax kat dana ci jàpp nit dana ci xeet nit waaye ba mu waxee xam naa ne Serigne Cheikh Thioro nit dëgg la tey nag jëf na jëf ju rëy ànd ko waa Pastef képp nag ci biir ci électoral bi liggéey fa liggéey boo am solo suñu coalition bii maa ngi ci groupe yëpp nag comme ni ko sëñ Fallou waxee woon tey damay déglu groupe yu bari wax naa sëñ Fallou mi ne ko dafa am lu ma mënewul mooy jël vocal bi sëñ Fallou transféré ko Mara waaye su ma ko doon def dana bari lu mu yàq nit ñi ñu ngi ñuy bëgg a jaxase te nag dëkk bii ak yeneen nit ñi dañoo bañ ñu ànd di dem parce que surtout ci politique bi ñu nekkee. ay gone ndaw a ngi fi yoonu benn ambition xëy ñu guntuñu la leen di may mooy bu guddee ñu woo sëñ Fallou ne ko la la Matar Diop wax wala la la keneen wax te na ay nit ñu fi nekk ñoo xam ne dañoo dañ kumpa buñ sañoon di xam lu yendu ci sëñ Fallou wala lu fanaan ci moom te ci gone gun ko am loo bëgg mën nañ la koo defal te bari na ci dëkk bii nag dañoo ñoo fees dell groupe WhatsApp bi kon suñu coalition bii di coalition Yewwi Askan Wi bu ñu nangu ko ñu ko tasal nañu ko téye liñ ci war a def lépp ñu def ko te gëm naa ne fekk ñu ngi ànd ak sëñ Fall ñu topp gannaaw bu soobee suñ borom ca kanam rek lay continuer di nekk waaye du féete gannaaw kon loolu ñu ngi ko dégg coalition di sant bu baax Cheikh Ndiaye koroog bi ma ko fekkee tribunal damay xam ne dénkaane ca ka ndax man tiitoon naa tiitaange goo xam ne su ma ko gisee rek sëñ Fallou laay gis waaye bu keneen yoroon yëf yi rek sama fit dana gën a dem waaye xam naa ne jàmbaar ak gore parce que ci karo ak i siis lañ doon fanaan dem nañ ba bu guddee sax lu nekk la ñuy wër ngir lekk ko taxawaay ba rafet lool kon sëriñ bi loolu maa ngi la koy seedeel ndax ñoo fa doon nekkandoo di leen xaar ci bit di woote téléphone ko laaj du nekk ñu du ko def waaye jàmbaar la moom ak comité électoral bi mu àndaloon te liggéey na ci liggéey lay sant bu baax ndax la nga doon def defaloo ko sëñ Fallou rek comité électoral bi ñëpp nga ko doon defal coalition bi ñëpp ko doon defal kon coalition bi ñëpp la war a sant di sant sëriñ Modou Gara bu baax waaye di sant sama yaay ju ñaaw jee soxna borom Mbàkke Bawol ñu ngi koy sant bu baax moom it di rafetlu taxawaayam soxna mi baxaw moom ñu ngi koy sant ñu ngi rafetlu taxawaayam soxna say jaam mii ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi koy sant di rafetlu taxawaayam bu baax sëñ Ibra Kan sëriñ Mbàkke Jaw mënuma wax ci moom ndax sëñ Mbàkke comme li ma ko wax rek daanaka mooy sama buntu presque ci sëñ Fallou ndax lu ci bare bari man ak moom ci moom laa ci rek ci moom laa koy jaare kon Serigne Mbacke maa ngi lay sant di la wax la ma dakaaweeku noonu dénk nañ la ko dénk nañ ko sëñ Fallou dénk nañ ko soxna soxna Amitine dénk nañ ko coalition bi ñëpp ma kaaw daal dina waaw ba pare na déet asalaamaaleykum wa rahmatullah